بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم macha allah sëñ Mbacke Gueye baax na. sadaqallahul aziim. a'uuzu billaahi minash shaytaanir rajiim. bismillaahir rahmaanir rahiim. was-saaffaati saffaa incha allah Serigne Mbacke Gueye Serigne Mbacke Serigne Mbacke Madina Gueye bàyyi mën naa ñëw jox ko diplôme bi incha allah bismillah Serigne bi Gueye mën ngaa àndaale kado yi kon ñu dem ci dong bi ñu topp rek Serigne Abdoul Fatah Sylla mën naa jege si. jërë ngeen jëf mbokki baas bi góor ak jigéen mag ak ndaw wàññil nañ ma li ngeen doon dajale liñ leen laajoon ëpp na ko ñoo ngi leen di ñaan yàlla ngeen si daje ma ngërëmul suñu borom ak ngërëmul Serigne Touba ak ngërëmul alquran jërë ngeen jëf أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تلبسوا الحق بالباطل بسم wala macha allah baax na kon ñu dem ci laaj bu ñaareel bi Abdul Fatah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 waaw macha allah baax na. sëriñ Abdul Fatah kon way naa ñoo jox ko diplôme moom Abdul soxna maam Jaara Fall bismillah soxna maam Jaara bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض بسم الله incha allah baax na. maam jaara ñu ñëw ci laaj bu ñaareel bi a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim ar-rahmanu 'allamal qur'an bismillah macha allah baax na soxna maam jaaram kon soxna jaara ñoo ngi may wax ne ñoo ngi sant bu baax ki ko jàngal alquran muy sëñ Mamor Ndiaye doom la ci Baye Talla waaye ku jàmbaar la ndax ñi ngi may xamal ne xaaju kaw bi ci juróom benn weer ci la ko jàngal soxna si fanweeri xisib juróom benn weer nga xam ne weer wu nekk kon jàng na ci juróom xisib moom soxna si daa wàcc yitit nag weer yu néew mu mokkal alquran kon sëñ Mamor mbokk yaa ngi lay yóbbante ak cant bu baax di xam ne it ñi ëpp ci gone yi mokkal alxuraan ci sa loxo lañ jaar loolu nag ak njàmbaar la sëñ Mamor mën ngaa ñëw ndax boo ne woon sama daaray bàyyi la rek nu ma neex doxee fi wa dëgg yàlla am lii may wane ne kon góor-góor rek moo am solo jërëjëf sëñ Mamor waaw sama daaray bàyyi la rek nu ma neex doxee du yàgg ba ñu ma takkal sab saak doxee woo noonu da ngaa góor-góorlu ci xale yi ba am ci résultat kon nag alhamdulilah yal na yàlla gën a guddal fan wi wax dëgg yàlla lii daal mbégte eh, farewu ko kaw waaye nag Baye Talla moom li mu lebal lislaam faaw borom bi subhaanahu wa dina ko fay ci njaboot gi insha allahu jërëjëf sëñ Mamor yal na yàlla fay la aw yiw kon ñu dem ci soxna yi ñoo ngi leen di sant bu baax te di leen gërëm tey ñaan rek yal na yàlla def tawfeex aywa kon monsieur Diop doyen bismillah mës a jóg kon ñu dem ci inspecteur bi nga xam ne moom mooy inspecteur daara ji saytu liggéeyam école bi bokk kii inspecteur école bi saytu liggéey bi war koo gaaral mbooleem ñi nga xam ne seenu njaboot ñi ngi ci école bi ñu xamal leen ne seen njaboot école bii mu nekk école la boo xam ne gouvernement bi da ko reconnaître li ñuy jàng ci école gouvernement bi ci lañ ciy jàngee donte école privée la seen doom yi ci biir daara yi ña nga cey góorgóorlu moom mi wax dëgg yàlla moom lañ dénk wàllu boobu kon mu ñëw ne la rek yéeg ci kaw ñëpp seen ko te déglu ko incha allah kon su ngeen faree rek yéen way jur ngeen may ko incha allah sëñ Bas imam mi ngi ñëw bismillah kon sëñ Bas imam sëñ Basiru Lo incha allah kon bu Musa Diouf daanelee rek moom la ñuy jox kàddu gi kon bismillah way juri soxna jaar yi jërë ngeen wax dëgg yàlla am soxna jaara jàmbaar la waaye yéen it jàmbaar ngeen macha allah yàlla fay leen aw yiw ayo Moussa Diouf bisimilah waa leen góor bisimilah ñu ngi xamal ne imaam Serigne Bassirou mi ngi dugg si Serigne Bassirou kon bu Moussa Diouf pare rek kàddug Serigne Bassirou Lo moo siy topp incha allahu taala imaam sëriñ Bassirou Lo moom la ñu jox kàddu gi ñoo ngi ñaan ne ñëpp toog te dégloo ànd ak dal yi ñoo ngi ñaan ne ñëpp toog te dégloo. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku ne ci turam ak santam. di leen siyaare bu baax a baax di rafetlu itam jataay bii nga xam ne moom lañ teew si muy teew jataayum alquran. nañ ñu may ak dégloo sëriñ bee waxtaan nañ ñu may ak dégloo. xam nañ ne alquran mooy lépp jullit ndax ci la léppam aju. kon bu fekkee ne dañoo nekk ci jataay boo xam ne dañ fay dundal arxaan di ko gën di ko gën di kaweel loola duñ mën a def lu dul rafetlu ko ak sant ci suñ borom ndax xam ne ñi ngi ci yoon woo xam ne yoon wuy dundal arxaan la yoon woo xam ne itam Euh, mooy yoon wi dundal ab jullit kon ñi ngi rafet lu jataay bu baax a baax di rafetlu itam doxinu daara ji ndax na si jullit suñ borom dafa bëgg ab jullit mu nekk koo xam ne wet gu ne da cee mane looloo taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xamaloon ne ab jullit li nga xam ne mooy alalam mooy lépp loo xam ne gis na ne lu baax la rek na xam ne loola alalam kon bu fekkee ne nekk nañ ci jataay boo xam ne wala nekk nañ ci daara joo xam ne bàyyi nañ xel alxuraan bi di ko jaa jàng ni ñu war a jàngi li nga xam ne moom lañ war a doxee itam seen dundinu àdduna itam ñu di ko dox ci doxin wu rafet bàyyi ko xel bu baax a baax loolu yaakaar naa sant rek lañ ci war a def ndax xam ne mooy taxawaay bi nga xam ne moom lañ war a jullit am jullit war a taxawee hmm. mooy li nga xam ne itam moom mooy li jullit war a sonne nañ dégloo nañ dégloo ndax xam nañ ne képp koo xam ne say sa tool mooy toolu suñ borom suñ borom dana nekk sa wet ni ko sëñ Abdoulaye waxe woon rek da ngay nag di wutal suñ borom aw lay ndax mu mën leen a jàppale nan dañ ci wutalee aw jàpp aw lay mooy nekk ci li nga moom la bëgg di ca dox hmm. bu boobaa loola mooy tax suñ borom bu ñu jàppale itam ñu xam ne war na koo def ndax dañoo nekk ci yoon wi nga xam ne mooy yoon wi wi di dox ca doxin wi nga xam ne moom la moom hmm. kon yàlla nañ suñ borom gën a dëgëral amiin ñu jàppale amiin xam naa ngi xetaayu maaleykum salaam wa rahmatullah imaam ba Bassirou Lo. suñu diggante ak alquran bàyyiwaat xel bu baax suñu diggante ak suñu njaboot gi di sonn ci ñu baax ndax ku ne ci ñun ni ngay sonnee sa njaboot ngir ñu tekki boo ko doon sonnee benn bi rek ngir ñu baax gone yi ci mbedd mi ñi ci bëree bëri danañ baax waaye nit ñi ñoom dañ ne na gone gi tekki rek waaye dañoo xamut ne tekki dëgg mooy nangoo jaar fi yàlla bëgg ab jaamam jaar fa. tekki du alal tekki du ay taax tekki du oto bu ñuy war tekki dëgg dëgg dëgg dëgg mooy nangoo jaar fii la sa borom jaarloo ndax borom bi nee na jullit bi nga xam ne daal lanka jaar fi ko yàlla jaarloo bu dekkee yowmal xiyaam gis ay jëfam ye ci ëpp doon ab safaan la muy njëkk a wax mooy maa agna anni maaliya man alal jama doon kërti kërti ba defuma ci woon lu baax liggéey lu ma ci woon lislaam alal ji ndekkante jëriñu ma dara ndax alal ja la ma ci amoon lépp bàyyi naa ko àdduna maa agna anni maaliya sama alal ji kat moo ma xañoon yàlla xañoon ma saay bokk ma topp alal rek ba defaruma sama njaboot bañ déggal yàlla maa agna anni maaliya halaka anni sultaaniya man kat poste yi àdduna ya taxoon may kërti kërti ba maa defar sama njaboot da gis koo xam ne naan man damay encadré sama njaboot waaye boo xoolee ci la ëpp la muy encadré ak njabootam du lu yàlla gërëm la ëpp tam la muy encadré ak njabootam du lu yàlla gërëm te dañ ne su doon ay di problème yi àdduna mooy tax nit bu màggee màggee teg Seydil Hadji Malick ak Cheikhul Khadim kenn du leen boole ci ñi teg waaye gis nga seeni wayjur bañ leen waajalee xam-xamu diine waajalee leen yarub diine dangay gis ne tey teraanga gi leen yàlla defal ak ñi mel ni ñoom kon ñun julit ñi nañu góorgóorluwaat xam ne tey ku déglu gone yi fi jàng alquran sam xel day dal sa yaakaar day dëgër bu baax nga xam ne gone yii ku leen taxaw fa mag ña jaaroon ci ak mbaax ëllëg mën nañ faa jaar kon daal loolu ay kàddu la woon yoo xam ne dañ ne woon nañ ci soññ waajur yëpp ñu gën ko bàyyi xel bu baax a baax a baax donte xam nañ ne rek noo ngi góorgóorlu waaye borom bi subhaanahu wa taala moom danaan saari'u ak saabiqu saari'u mooy njëkkalante leen ila magfiratin min rabbikum ci loo xam ne da leen di may njéggalal seen borom beneen bi mu ne saabiqu rawante leen ila magfirati min rabbikum ci leen di may seen njéggalal seen borom kon ay julit moom suñu nekkee ci lu baax saa su nekkee dañ cee war di soññante incha allah kon kaddu yi nga xam ne conférencier bi moo waroon a ñëw jàllale ko yàlla dogal ñëwut ñu ne ñu woon nañ ko ci wut rek ñun ñëpp daal nu àndandoo góorgóorlu baax xam ne àdduna si moom كسراب بقيع يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا borom bi nee na àdduna moom képp ku xéeloo di ko dàqee doo ko jàpp mu joxe ci misaal mu ne àdduna daa mel ni booy dox boori une heure trente ci télé bi da ngay séen lu mel ni ndox sa kanam nee na ki mar nag bu ko séenee jàpp ne lële am ndox la mën na koo toppee ndakaaru ba Cees te du ko dab loolu mooy àdduna ndax tey da ngay gis koo xam ne danaan man su ma dundoon rek bu ma dundoon ba mën a fayee ko weer cinquante mille sama adduna neex bis buy am weer cinquante mille rek naan bu ma amoon deux cent cinquante mille sama adduna neex su amee deux cent cinquante mille ne bu ma amee cinq cent mille sama adduna neex boo amee ne bu ma amee un million sama adduna neex su amee ab pàkk ne bu ma ko tabaxoon ab terrasse ba adduna neex boo amee terrasse ne étage boo amee étage ne air plus di compter muy dem rek nga xam ne adduna loolu mag ñi daan wax naan mbaxalum pont la njëkk a sóor ak mujj sóor yam kenn du ñoral ku fi naw sa matt it naw sa ndox da ngay xam bu ba sa matt jeex sa ndox ngeer boo yakkee mu dëgër këkk ndax adduna moom ak jagadi la baaxoo kenn mënu fee kër kër yi ba jagal ko li fi am solo kay mooy des fii jagee mbaa des fii waaye adduna moom ku ne maa koy jagal da ngay kërti kërti ba sa dund jeex adduna kon ne di jagali sa ginnaaw kon ñun ñëpp ñu xam ne rek lii responsabilité bi ab jullit ci adduna mooy mu jagal boppam waaye taxawu ak njabootam ba njabootam jagee ci ay loxom te gone yii ëllëg yowmal qiyaam yàlla li lijjanti suñu diggante ak ñoom waqifuuhum innahum mas'uluun maa lakum laa tanaasuruun borom bi nee na ku ne ci yéen yowmal qiyaam dinaa ko taxawal laaj ko nan la sàmmee woon ak njabootam ndax daf leen a jaarale woon fi yàlla akub yonentam bëgg jullit bu fa jaarale ak njabootam wala da leen a jaarale woon fi adduna bëgg ku fi jaarale sag njaboot nit ñu bëri nag dañoo tànn ñoom jaarale seenu njaboot fi adduna bëgg ku fi jaarale seenu njaboot kon ñun ñi nga xam ne am nañ am xel mu rafet ak yaakaar ju dëgër jël suñu njaboot yóbbu leen ci daara yi ñuy jàng alquran yóbbu leen ci école yi ñuy jàng ñu taxawu leen nan dalal suñu xel bu baax te gunge leen ca loola kon incha allahu rek li ci topp lañ ma wax ne moo ci topp mooy Moussa Diouf moo war a ñëw jàllale kàddu école bi lu jub ci wax ji ñu santee ko mbaaxu yàlla lu ci dëng noo ngi koy jéggalu suñu borom te di ko lu ñu doon dégg kàddu gi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu Serigne Kabou Kébé si kàddu yu rafet yooyu te jot waaye mat sëkk di ab soññe boo xamante ne mënul si woon a ñàkk. Chère Assistance, permettez-moi avant tout de formuler mes sincères salutations à l'endroit de toutes les autorités religieuses, administratives et coutumières présentes dans ce somptueux cadre, temple du savoir, du savoir-faire et du savoir-être. Mes salutations à Serigne Talla Ndiaye, responsable moral de l'Institut Massalikul Jinaan Salutations à l'ensemble des membres de l'association des parents d'élèves, à toute l'équipe pédagogique, aussi bien du Dara que celle des écoles privées, Khadim Rassoul Ndindi et Khadimoul Khadim Bob, sans oublier le corps professoral agissant avec rigueur et dynamisme au niveau du collège qui a démarré ses activités cette année sous l'œil attentif du doyen Abdoulaye Niass en collaboration avec monsieur Mamor Ndiaye et monsieur Bati L'on ne saurait tout de même ne pas saluer tout le personnel de service et les partenaires qui, de près ou de loin, ont apporté leur expertise et leurs moyens pour la réussite de cette journée mémorable de récital coranique et de distribution de prix dédiés aux élèves les plus méritants suite aux évaluations scolaires. Honorables invités, après ces considérations, j'aimerais faire un bref rappel historique, parsemé d'embûches, mais aussi couronné de succès à chacune de ces étapes. Ce grand et somptueux édifice n'est pas sorti de terre du jour au lendemain. Ce n'est donc pas un fruit du hasard. Bien au contraire, c'est l'aboutissement d'un travail de longue haleine, abattu par un grand ordre, amoureux du Saint-Coran et soucieux du devenir de nos progénitures. Selon lui, l'avenir ne se forge qu'à travers l'éducation, l'instruction et la formation des... C'est d'ailleurs dans cette mouvance que l'Institut Massalikul Jinaan a vu le jour en 2007 à Touba. avec un statut de dara traditionnel informel, recevant tout enfant résidant au Sénégal sans aucune considération discriminatoire, ni d'estime particulière, d'obédience ethnique ou confrérique. Ce fut un cadre hélas modeste, où les nongo apprenaient naturellement le Saint-Coran sous le régime d'externat. Quatre années plus tard, l'ingéniosité et l'ambition démesurée de notre généreux père aboutissent à la création du Dara de Ndindi et celui de Bob, tous les deux sous le régime d'internat en avril Très inspiré de l'expérience de son oncle, l'érudit et la sagesse incarnée, je voudrais nommer Serine Modougueï, l'auteur de ces réalisations fit un constat amer selon lequel, au bout de trois années d'apprentissage coranique, l'enfant ayant parfaitement mémorisé les textes sacrés, retournait au domicile de ses parents et devrait découvrir un univers scolaire nouveau pour poursuivre le cursus élémentaire afin d'acquérir les enseignements apprentissages en français. Au milieu de cet environnement inhabituel, le pauvre enfant, très vulnérable, se voyait exposé aux tentations sociétale de toutes sortes. Alors, il perdait souvent ses repères et sombrait dans des comportements allant en l'encontre de ceux qui lui avaient été inculqués auparavant. Serigne Talla Ndiaye a dû faire face à cette désolante et inquiétante situation qui précipita la mise en exécution de son noble projet résultant au démarrage des enseignements apprentissages au niveau des écoles privées franco-arabes Khadim Rassoul et Khadimoul Khadim Bob qui, ensemble, ont obtenu globalement en, 19, en e et à l'entrée en sixième. En 2015, il n'y avait pas eu un grand effectif puisque Et c'était seulement celui de Khadim Khadim, Bob, qui a présenter six candidats, dont les trois sont passés et la moitié a été recalée. En 2016, 21 candidats ont réussi sur 24. 2017, 30 sur 36. 2018, 31 sur 37. 2019, 25 sur 36. 2020, 45 sur 49. Et 2021, 39 sur 44

mérite qu'il lui soit offert l'opportunité de rester à l'internat où il subit dans une durée de seulement trois années tout le cycle élémentaire, c'est-à-dire du CI au CM2, dans un cadre approprié à des enseignements de qualité, déroulés avec le respect strict du programme scolaire en vigueur, je voudrais dire celui du curriculum de l'éducation de base. Mieux, comme le montre l'extension et la réflexion, des locaux, cette année vient en appui le collège pour permettre à l'enfant qui vient d'obtenir son certificat et l'entrée en sixième de poursuivre en deux ans, au lieu de quatre, tout le cycle moyen de la sixième à la troisième. Par la grâce du Tout-Puissant, l'Institut Mazalikoul Djinan ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et aspire réaliser bien d'autres prouesses à la hauteur de ses espérances. Je ne saurais terminer mon propos sans avoir une pensée pieuse à notre regrettée tante, sœur pour certains et nièce pour d'autres, Adja Koumba Ndiaye, défunte épouse de Serigne Talla Ndiaye, à notre affection au mois de septembre dernier. Que Dieu l'accueille au paradis, ainsi qu'à tous ceux qui nous ont déjà quittés. Je souhaite à tout un chacun d'entre vous ici présents nos voeux les meilleurs pour cette année nouvelle 2023. Que Dieu exauce nos prières et fasse de nous les meilleurs des hommes possibles sur cette terre. Vive le Dara et l'école privée Khadim Rassoul Ndindi. Vive le Dara et l'école Khadim Rassoul, euh, Khadimoul Khadim Pop. Vive tout simplement l'institut Massalikul Jinan. Assalamu alaykum wa rahmatullah. jërë xam naa ne du ma mën a wax kàddu yi leer na ndax li mu doon wax moom chiffres yi néew laa ci xam résultats yi daal moom xam naa ko <laughs> résultats yi daal moom xam naa ko xam naa tubaab yi ñu li bokkul ak man nag xam nañ li mu wax moom man daal résultats yi école bi am la dong laa xam <laughs> waaye jërëjëf monsieur Diop gars yi nee leer na nañ ñi dégg tubaab kon dañuy jox suñ kàbb moom tam mu ñëwaat si beneen résumé bu ndaw rek boo xam ne comme xeet boobu la ngir ñi nga xam ne olof lañ dégg ñoom itam ñu gën a comprendre li waa ji di li sëriñ boobu doon wax di monsieur Diop balaa loolu nag danañ leen nuyoo léegi imaam sëriñ Xaadim Lo moom itam agsi na léegi ci liggéey bi kon sëriñ Xaadim Lo ñu ngi lay dalal ak jàmm di la wax macha allah agsi nga si sa kër agsi nga si sa bërëb ñoo ngi lay sargal te di la tatagal di la wax ahlan wa sahlan marhaban bi ñu jox sëriñ Kàbbu Kebe moom it mu feeñal yéeneem ci ak leeral ci wàllu daara ji bismillah mbokk yi ñoo leen di nuyuwaat bu baax bi jaajëf mu leeral ci jur yi nga xam ne dégguñu woon lim doon wax ñu bokk xam ne li doon wax li ci jiitu rek mooy ginnaaw bi mu jotalee nuyoo ak ziara sëriñ Talla Ndiaye ak mbooleem ñu koy jàppale ci doxinu daara ji ci doxinu école bi ak ba nekk Touba. waaye ci loolu it muy dalal xeli jur yëpp ci ne école bi mi ngi góorgóorlu ci seenu njaboot bu baax a baax doonut école boo xam ne yitit nag bàyyi taala daa defi pexeem rek ba ubbi ko ci ruqam di lekk xaalisu way jur yi waaye daa doon école boo xam ne dafa jaar fi ab école di jaar ba matal sart yi tax gouvernement bi mën na reconnaître école bi ba mën a doon école boo xam ne ci ron kilifteefu ministre bi ñu dénk njàng mi ci la nekk muy école boo xam ne nag mi ngi amee résultat comme ne daara ji doon amee résultat su dee daara ji moom dañ ne 2007 ba fii ñu toog daara ji am na fi 43 personnes yu fi mokkalee alquran muy ñeent fukki nit ak ñett yu fi mokkalee alquran ci daara ji way jur yu bëri nag dañoo xàmmee gut wàcce ak mokkal moo tax yenn saay boo amee gone gu yeewu day wàcc ne la pare naa nga ne ko lan mu ne la jeexal naa kaamil bi wàcc lañ ne mooy baat bi njëkk ci alquran ba fi mu yem nga mën koo tiim xool ko wax ko loolu mooy wàcc mokkal nag mooy suñ ko dëppee nga mën koo tari moo tax yéen woy juree xàmmee leen ñaar yooyu da ngay ñu ne wàcc na toggal nañ koy laax wasalaam julli gi àggagut loolu étape la faaw nag woy juri xam ko dañ ne alquran li ci gën bu ko sag njaboot ma ne mokkal nga taxawu leen ba ñu mokkal ko ndax du tardeel kenn mokkal alxuraan du tardeel kenn tey jii boo demoon université da fekk ay gone yoo xam ne jàng nañu alxuraan ba mokkal ko bind kaamil li ñu war a jàng ci majaalis lépp ñu jàng ko dabi seen moroom yeñ bawoon ci kër ga ñu dal école ñoom ñu dem ca daara ja te yàqulu leen dara kon nu xam ne daara ji ñeent fukki xale ñett yooyu mokkalee fi alxuraan ci diiru fukki at ak juróom ñaar yooyu wala fukki at ak juróom yi bii di fukki at ak juróom benneel bi li ci gën a am solo nag mooy dañoo bu njëkk dañ daan wax ne xale bu nekkul ci daara internat di dem tool ak a taxan mën naa mokkal alxuraan ci diirub fukki at mën naa mokkal alxuraan ci juróom-ñaari at waaye da gis ne bi daara internat tàmbaleeg léegi ñi ci fonk njàng mi xam ne xale bi demutul tool demutul fenn jàng rek lay def gone gi mën naa mokkal alxuraan ci lu matul juróomi at fii nag gis nañ ne daara ji def na effort ba am na gone yu fi mokkal alxuraan ci diirum ñaari at loolu fi mu ne ki koy dégg danaan lu mën a nekke nu gone mën a mokkalee alxuraan ci lu matul ñaari at ñu ne ah kay gone gi boo góorgóorloo ci moom ba mu fere ijji ci weer kaamil bi boo doon jël bis bu nekk robo on at nga wàcce alxuraan bis bi nekk rubo boo ko jëlee at nga wàcce alxuraan booy wax ki xamutum ñàng nag danaan gone nu mën a mokkale alxuraan ci ñaari at ndax gone gi tey boo fexe woon ba bis bu ne mu tari ab rubo am ci alxuraan lu mu romb mokkal ko mennum at mën na cee mokkal alxuraan bu bëree ba bëri at ak juróom benn weer bu wàccee juróom benn weer yow mi nga xam ne da nga naan nun ciy mokkalee alxuraan gone bu wàccoon di jël xisbu alxuraan ñetti weer lay àggal ñetti weer pare xisib boo koy jël kaamil ñetti weer da ngay àggal boo jël ñaari xisib weer fukki fan juróom da ngay àggal booy jël fukki juróomi xisib fukki fan ñaar yu nekk nga daaneel ab kaamil kon da gis ne ni inspecteurs yi di wéetee di xalaat wan yoon la ñuy teg ñàngum réew mi ba mu jaar aw yoon noonu la jàngalekat yi alxuraan yi di wéetee di xalaat wan yoon wu gaaw la ñuy teg gone yi bañ mokkal alxuraan kon looloo tax daara ji góor na ba am na xale boo xam ne at ak nangami weer ci la mokkal alxuraan nga xam ne moom àggut ci ñaari at sax yenn saay yi nag jafe-jafe am waajur yi danaan waa diw soom nawle la andi na doomam ci daara ji mokkal alxuraan man lu tax sama doom mokkalul maanaam dañ ne mokkal ak ñàkk a mokkal bu nekkoon ci loxob sëñ daara bi ki dàq fay la doomam di njëkk mokkal alxuraan waaye yenn saa yi day mel ni yàlla dalay natt naan la waajur wi nga xam ne mi ngi fay di jënd ceeb di jàpp ci daara ji nga am yéene ci njabootam daa mel ni kookaay naqari xel ka nga xam ne nag ak fayam bala nga caa jot ba muy kër ci kër ci bay bëgg a dee ñaareel xel nga xam ne yow bu la yàlla ñurut rek boo moytut moom da ngay weq kooku mu génn daara ji kon nu xam ne am na gone yu fi mokkal alxuraan ci ñetti at am na ñu ko ëpp tuuti am na ñu ko yées kon alhamdulilah ñu xam ne am nañ fi juróomi gone yoo xam ne ñoom it ci ñaari at képp lañ mokkale alxuraan ci limub ñeent fukki gone ak ñett yooyu su ko defee yéen ñi doon déglu ci wàllu école bi école bi diggante 2014 ba fii ñu toog am nañ fi 112 personnes yoo xam ne ñoom ñëpp am na amee nañ certificat ci école bi 112 personnes yoo xam ne ñoom ñëpp amee nañ certificat ci école bi bu ñu ne am nañ certificat ci école bi nag du caageenu menn at la dañ ne 2014 ci la école bi njëkk a tànn ay candidat ñu dem jongante su ko defee waajur yi ñu bàyyi xel ne daara ji bu jàngalee ba pare day dem ci gouvernement bi ne leen am naa ay candidat yu ma bëgg ñu def examen CFE at moomu 2014 am nañ 14 personnes yoo xam ne am nañ certificat 2015 ñu am 3 personnes 2016 ñu am 4 personnes ñu am 17 personnes boo gisee nag yenn saa yi comme 2014 bi ñu amee 14 personnes gone yi ni ñuy maasee mooy tax da gis génération boo xam ne dañuy mokkalandoo alxuraan duggandoo école bi ñooñu nag suñuy jeexal mën naa am ñu topp ci ñoom suñ mokkalee alquran te ñee raw leen ñi ci toppaat suñ bëriwut ñee buñ jeexalee classe examen bi ñay defaat examen dañuy néew moo tax 2014 ñu am 14 ñu am 3 personnes ñu am 4 bi agsee ñu am 17 personnes 2018 19 personnes 2019 8 personnes 2020 16 personnes 2014 ñu am 14 personnes 2022 ñu am 24 nga xam ne lii boo ko totaalee da gis ne daara ji amagum ne ci résultat lu mat 112 personnes daara ji it nag gone yi mu encadré gum am na gone yoo xam ne ci daara ji lañ jaar ndax damay wax ne ab jàngalekat ab jàngalekat mbégteem mooy mu taxawu gone gi ba gone gi réussir ci am njàngam loolu may mbégte mi gën a rëy miy seral xolub ab jàngalekat moo tax daara ji encadré na ay gone bañ am licence encadré na ay gone bañ am maîtrise encadré na encadré na ay gone bañ dem université am bac jàll université loolu lépp jubluwaay bi rek mooy fexe ba taxawu gone gi ba li war a nekk ci moom ci wàllu diine mu nekk ci li war a nekk ci moom ci wàllu adduna mu nekk ci kon yéen wayjur yi ngeen xam ne daara ji saa su ne mi ngi jéem a def effort li ñu suñu benn sëriñ doon wax nag muy xifzul quran bi xayri unfin mooy taxawu gone gi ba mu mokkal alquran te kenn du ko bundu xataab daara ji système boobu lay jéem a yor ndax man bis bu ne damay wax ne leen gone yi nañ leen fexe convaincre bañ bëgg daara ji bëgg alquran suñ ko defee problème du amati waaye gis nga gone damay wax ne fitnaal ko du tax mu mokkal alquran réewi naar réewi naar yi pour ñu dàq leen alxuraan yombul daanaka ñun système bii ñu yor sax yor daara nii gone gi dëkk ci daara ji rek ñoom amu fa jàngale jàngalekat la ñuy wut rek teg ko ci jumaa ji gone gi di ñëw mu ko jox ay cours muy dem ci loolu la gone gi di jaar bu mokkal alxuraan dana dal ba wàcc kenn du ko mbéj kon système boobu it kon modernisation bi daara ji woote bu leen jàpp ne ci ay bâtiment rek la luñ man ci moderniser njàng mi ba aw métit bu ci am ci diggante jàngalekat bi ak xale bi aw métit bu ci am xale bi saa su ne muy yëg ne man suñ biir kër laa nekk mbooleem li gone gi nekkul daara di am seen kër lépp mu koy am ci daara ji donte nag dajale mbooloo moo xaw a jafe rawatina mbooloom ay gone dajaleen daa xaw a jafe waaye kon way jur yi ñu bàyyi ci bu baax ndax gone dana dal ba mokkal alquran kenn du ko fitnaal kenn du ko fitnaal ndax dafa am xeeti na yoo xam ne wax dëgg yàlla jamono romb na ko wér gi yaramu gone yi romb nañ ko ndax ni ma koy faral di misaale rek gone yi tey ñoo ginaaru poulailler yi ñoo yam ñun gone yi kookoow ñun gone yi juddoo ca kooka sabaay baay da daan wax gan am na dàqeel ginaar gi jàpp ko mën ngaa dàqantee ginaar gi nangami waxtu ginaar gi du sonn ginaar ak poulailler moom soo ko doon dóor ab yarit boo moytuwul pour mu keek sax nga dégg ko day jafe ndax nañ ko yaree gone yi tamit noonu lañ juddoo dañoo juddu ci aw yaram wu xaw a lomfañ xaw a néew kàttan nga xam ne gone boo ko sukkule woon lu yàgg rek da ngay gis muy miir bu njëkk nag gone kooku moom mën nga koo taxaw taxawloo di ko sàkkerloo suba ba ngoon du toqi du sonn ndax wér googu mu amoon léegi gone tey amuñ ko looloo tax kon daara ji di dalal xeli waajur yi fexe ne it ba sensibiliser jàngalekat yi saa su nekk ñu di leen defal ay séminaire di leen xamal ne jàngale du bundu xataal waaye système la gis nga système mu jàngale boo ko xasee ba am pédagogie jàngale boo xasee ba am jarut jarut ngay bundu xataal gone gone gi da ngay fexe ba mu xam li nga bëgg ci moom ak wan yoon ngay jaar ba mu am ko rek bu ko gone gi xasee ba am ba xam rek da ngay daal di noppalu yow xamal ko ne heure sangam ba heure sangam bind lañ la fi tariloo heure sangam ba heure sangam wet lañ la fi tariloo heure sangam ba heure sangam nafar lañ la fi tariloo su gone gi xasee ba xam lii nga xam gone gi it expérience gone gi compétence gone gi lan la mu xelam attan loolu jàngalekat bi bu ko xamee day noppalu ndax gone yëpp boo leen bëggee gurgurloo sóob leen ci wenn yoon day am koo xam ne da koy tardeel am koo xam ne da nga koy mbugal ki gaaw ba raw leen man leen a raw kooku da nga koy tardeel ki nga xam ne am xelam attunu ci nga ànd ak ñoom kooku da koy mbugal kon yooyu yëpp nag daara ji mi koy xam di ci jéem a ànd ak gone yi bu baax a baax li nga xam ne nag mook alxuraan ñoo ànd diisaayu alxuraan ala kulli xaalin pour donga bi mokkal ko yenn saa yi day jeexintal ci moom loolu moom dañuy wax way yi neen kenn mënu ci dara diisaayu alxuraan suñu yaay Aïcha nee na su ma masaan a tàllal sama tànk yonente bi salaa salaam njeganu ci bu alquran di wàcc yonente bi salaa salaam dama koy yëg ndax diisaay wii nekk ci moom yonente bi salaa salaam day yëg ne alquran ji diis na ba day kon pour ñu dugal ko ci bopp ab julit nag faaw yenn dana xaw am ab jeex dana xaw a am kanam gu yërëmtalu dana xaw a am bët yu xonq dana xaw a am nangam ak nangam su boobaa bul jàpp ne ñàkk topp toola bul jàpp ne dara xeer wi gën a dëgër ci àdduna su ma fi wàcc woon alxuraan dane ne tas tasar ndax diisaayu alxuraan kon wayjur yi ñoo ngi leen di bàyyiloo xel bu baax ndax lii wane ne daara ji bàcc njaay mii bàcc njaay mii bi ma daan jàngi seen kër xam-xam laa ko fekkoon muy jàng alxuraan ci biir daaray baayam ci la jàngi alxuraan bu mokkal kon loolu day wane ne rek daara ji njabootub daara ji ñi ngi ci biir daara ji di jàngat bay mokkal alxuraan kon loolu day wane ne daara ji moom xale bu fi ñëw rek dañ laa jàppee njabootub daara ji di la taxaw seen kam kàttan kon loolu rek lañ leen bëggoon leeral way juri ngeen xam ne daal daara ji mi ngi def effort mënta ñàkk nag ay jafe-jafe loolay tax saa su ne daara jaangi ngi tàllal way jur yëpp loxo di xam ne képp ku joxe sa njaboot ci daara ji am nga fi xalaat képp koo xam ne gis nga loo xam ne boo ko waxee daara ji su ci daara ji jaaree ñàng mi dana gën a gaaw dana ëpp noflaay daara jaa ngi la ciy tàllal loxo képp ku gis jafe-jafe ci sa doom it na nga ko wax ndax gone dafa xaw a naqaree yor yenn saa yi mu am lu mën a wax baayam te ko mën a wax borom daara ji am lu mën a wax baayam te du ko mën a wax jàngalekat yi kon bu la sa doom wax rek nga dem gëm li sa doom wax gone yi it loolu ñu daan wax gone gu nanguut a toog ca daara ji ak jigéen ju nanguut a sëy lu ñu la wax seetaat ko ndax ñoom lu leen fa jëlee dong la ñuy wax moo tax yenn saa yi nag sa doom ñëw wax la dara lañ batul soo demee ba sa waxi doom gën laa doy nag ci wax yi ki nga ko jox nag da ngay seetaat sa bopp fi ne am na wayjur yoo xam ne ñoom seen waxi doom moo leen gën a doy waxi ki jox seenu njaboot loolu it wayjur yi dee ko bàyyi xel sa doom bu ñëwee wax la dara bul ko saxal bul ko weddi nee ko bàyyil ma laaj soo ne ko bàyyil ma laaj rek bala nga bala ngaa laaj ba moytu mu wax la dëgg-dëgg mbir ma ni demee kon loolu lépp daal di leen sant di leen gërëm nag ci turu Taala ndax yéen a tax daara ji tudd daara suñ ko état zone état yu rëy te ab dong nga yeewu fi du tax mu tudd daara tiyaaba ji muy amee ci ñàngaleem alxuraan yéen a ko ko may moo ko njabootam kon mi leen di sant di leen gërëm di xam ne wax dëgg yàlla amoon na yéene doon ab kat di jàngal njaboot ak lislaam yéeneem jooju nag yéene ko mottali kon mi ngi leen di sant di leen gërëm lii daal ay kàddu la woon yoo xam ne dane woon nañ leen ko leeralal ngeen xam ne nii la liggéey bi di doxee ku yàlla dogal nag sa njaboot bokk ci ñu mokkal alxuraan santal yàlla bu baax ku yàlla dogal sa njaboot bokku ci it nga xam ne daara ji moom ku fi ñëw ku ne am na yéene ci yow jàngal la am na yéene ci yow yar la daa am loo xam ne nag ak xër mayewu ko yàlla moo koy dogal ci jaamam ndax yonente bi salaa sallam yàlla dane ko in tahris ala fa inna allaha la yahdi man yudil loo xër xër xër xër bëgg nit ki jaar ci aw yoon yoon woowu nga koy jaarale bu neexul yàlla du ca jaar kon wépp wajur woo xam ne am nga li la neex ci sa doom sant ci yàlla bu baax soo ci amee lu la naqari it jéggalal waa daara ji te xam ne jéem nañ mën naa am yenn saa yi la ñu jéem daa woroo ak dogalub yàlla te yàlla mooy ki nga xam ne nag innama amruhu ida arada shay'an an yaqulu lahu kun fayakun mooy ki nga xam ne bu bëggee mbir nam bëggee mbir la mbir may amee kon kàddu yi daal lan nañu woon nañ ko indi di sant jàngalekat yi bu baax nag wax dëgg yàlla Baye Talla nee na mi ngi leen sant bu baax a baax a baax ndax yëg na ne ak fay bàyyiwu leen ci daara ji yëg na ne ak fay bàyyiwu leen ci daara ji jàppeewu leen seen bopp it ay jàngalekat kese da ngeen a seen bopp ay jullit yu war a lëggéeyal yàlla ci njaboot lislaam gi jàppoo seen bopp ay doom yu fekk seen bàyyi war a ànd ak moom ñu lëggéeyal lislaam ci njaboot ak lislaam gi kon mi ngi leen di sant bu baax di leen gërëm rawatina nag ñi nga xam ne ñoo koy jàppale ci daara ji muy soxna yeeg ña topp ñëpp lii daal ay kàddu la yoon yoo xam ne bàyyi ne ñoo ko yoral école bi rawatina monsieur Diouf ñi nga xam ne moo ànd ak su nekk rek muy ñëw ndax ñoom ñëpp yëg nañ ne lii du moomeelu baay taala moomeelu lislaam la ñu nga cey góorgóorlu seen kem kàttan kon lu ci jub ñu xam ne lii la suñu baay yónni woon lu ci dëng nanga ko koy jéggalu te di ko jéggalu suñu borom wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waaleykum asalaam sëriñ Kabou Kébé jàpp naa ne lépp jub na dara lu ci dëng amul ci lépp rafet na macha allah xam naa ne sax li si gën a yéeme mooy